Euh, Kader merci beaucoup pour Kajoor. tous ces constats Kajoor merci beaucoup pour tous ces parce que quoi qu'on li nga wax ni c'est des faits yoo xam ne du sax lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy chercher de très loin cest dire des faits palpables yoo xam Sénégalais yu bari ñoo si teg seen bët ci yu bari moo tax euh, ñun ba ñu jugee rek gis nga notre début c'était très difficile nit ñi pour ñu comprendre ñu lu metti la woon parce que dañoo fekkoon fi benn bipolarité mortifère bu fi nekkoon nga xam ne nit ñi li ñuy wax rek dañuy fekk saagu démocratie tege nii. Mhm. dañ ciy dugal seen loxo li leen ci arrangé ci démocratie bi ñu jël ko ne lii mooy démocratie li leen arrangé wul nag ñu bàyyi ko fa. ñun nag ñu ñëw gis ni maanaam démocratie warul tëddee nii ba ci opposition sax maanaam conception bi ci nit ñi am ak ñun ba ñuy incarné suñu voie conception bi ñu ci am bokkut. parce que opposition pour man ce n'est pas que qu'on fait du pouvoir rek qu'on est pour man mbir mi du camp bi nga féete mooy signifier que ni baax nga wala bon nga comme li nga wax léegi tey nga nekk ci pouvoir bi pendant des dizaines d'années def fi lu ne guut a nga traversé ko fi tey les mêmes problèmes la ñuy dund nga ñëw nga ne yow yaay nekk acteur principal bi yaa koy xeex loolu tamit loolu c'est c'est un peu antinomique moo tax ñun ba ñu ñëwee ñu ne bu fekkoon ñun li ñu bëgg ak ni ñu bëgg a doxee gis nañ kenn ci koo xam ne moo ko incarné pleinement yàlla xam na ne duñu duñu sumb leneen dañuy ñëw ànd ak moom ci loolu koo ci xool rek da gis ay téex day am ay manquement yoo xam ne day am ci doxalinam wala ni muy wutee surtout constance moo gën a jafe moo tax ñun ba ñëwee dañ ne ñun leen lañuy ñuy mooy dëgg nga nekk pouvoir nga wàcc yoon dinañ la wax sëñ bi wàcc nga yoon li nga def nii du dëgg wala li nga wax ni dëgg nga nekk opposition tamit wàcc yoon ñu xamal na ni sëñ bi yow da ngaa wàcc yoon lii mooy démocratie lii mooy république lii mooy dëgg tamit mais ñun li ñu li ñu jafe-jafe bi ñu amoon à l'époque mooy dañ naan puisque opposition ngeen nekk rek opposition lu muy def ci loo xam ne ay nduxuñ mujj la wala ay wala wala ay deal wala ay lu mën a doon da ngeen cee war a noppi parce que oppo oh, ay opposant ngeen ñu ne leen déedéet ñun défendre uñ opposition défendre uñ pouvoir ñun dëgg la ñuy défendre les vérités de l'heure léegi dëgg googu nag fu mu mën a fóote féete ñun dañuy dañuy dañuy dañuy tranché wax ci suñu position clairement léegi nag à cette période là mën na neex mën na bañ a neex mën na arrangé ñenn ñi mën na ñàkk arrangé waaye histoire bu dawee rek maanaam bu ñu dawalee tuuti rek avec le temps di nga gis que ni histoire te donne raison ci beaucoup de points donc li nga wax ni euh, mooy manque de conscience bi am parfois ci yenn acteurs politiques yi mais tamit quoi qu'il en soit pour man loolu warul woon mës a nekk prétexte pour le président de la république muy fomm lu toll ni élection présidentielle gis nga gis nga vidéo yu bari yi ñu ko génneel ci ay position à l'époque di ko ci ci ci ci repousser élection bu doon rey nit kenn ñu ñu ñu bëri. <laughs> non mais xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga président de la république tamit moom leneen la. xam nga ay ay opposant mën nañ nekk fii ñu ci bari tamit parfois dañuy mën a benn combat waaye duñ xam sax dëggantaan jaay combat bi ñu mën a maanaam duñ ko analyser jusqu'au bout parce que gis nga ci ñoo xam ne ñoo doon défendre défendre ñu ñu arrêté processus bi mais actuellement gis nga leen ñu taxaw di xeex ne nañ jàkkaarloog Macky Sall yow tu doo comprendre en fait. ngay xam ne ñii kon combat bi ñu doon jéem a mëne sax xamuñu ko woon seulement que euh, il euh, recalé woon nañ leen ñu topp maintenant euh, seen seen seen mer boobu rek dugg ci ci ci combat yoo xam ne maanaam saytuwuñ ko xeltuwuñ ci bu baax a baax loolu moo indi tey ji président de la République saisi occasion boobu noonu ak yeneen yu ko nit ñi jox pour pour mën ci ne da ciy sukkandiku donte sax du ay du cëslaay goo xam ne mën naa dëgër mën naa wér pour man pour rien au monde président bu ñëpp bu opposition bi yëpp maase woon naan ko repousser élection yi dafa war a arrière ne leen pour rien au monde du ma repousser élection yi parce que pour le respect du calendrier électoral te tamit pour bañ a def loo xam ne Sénégal kenn mësu ko fee def parce que président dafa ñëw def loo xam ne kenn mësu ko fee def nit ñëpp di ko tàccu mooy li ma wax léegi ba mu bàyyi troisième candidature waaye mu ñëwaat suul loolu def leneen loo xam tam kenn mësu ko fee def muy lu ñaaw mooy jéem a repousser te li ci gën a doy mooy teg ko ci benn maanaam ci ci ci fee yi mu ko teg yu oyof oyof yu léger parce que yow mënoo ne sa premier ministre Kajoor sa premier ministre lañ jiiñ guerre nga ne nga ne suspicion moo am. mais mënoo wax légèreté premier premier ministre. waaw déggal la ñu ñu ñu ñu ñu ñu. Euh, accusé ko de guerre. Ah. deux juges de la constitution. Hmm. ñu ne ñoom dañoo dañu dañu dañu dañoo hmm. jot xaalis. Hmm. Euh, ay candidats. yoo xam ne kenn franc xamul français lañ kenn xamul sénégalais lañ. nationalité. Hmm. waaw loolu noonu yëpp nga nga nga bëgg ne. xam nga xam nga xam nga kon c'est des choses c'est pas des choses légères. xam nga kon mooy waxee légèreté. Hmm. mooy président de la république moom moo génn defal ñu discours. ci biir discours am moom moo ne euh, dafa am ñoo xam ne dañoo jiiñ kenn te kenn koo xam ne ku ñu def parce que waa PDS Amadou Ba lañ jiiñ ñoom nëbbatuuñ nekk ñu fi naan am na koo xam ne wala am ñoom dañoo wax clairement ne hmm. Amadou Ba. lañ jiiñ ñi moo ger waa conseil constitutionnel léegi yow Amadou Ba nekk sa premier ministre yow nga nañu ah li kat garaaw na graaw boo xam ne mënuñu koo bàyyi mu jàll faw jar na ñu repousser élection waaye yow jarul tey nga dàq sa premier ministre ba pare li si gën a doy waar gën ci gën cee contradictoire mooy da conseil des ministres dafa jotaat le mercredi prochain nga toog ne je renouvelle ma confiance ci premier ministre boobu te kooku moom lañ ne dañ ko jiiñ ger ba tax nga pousse suñu élection yow jar jar na pousse élection waaye jarul tey nga dàq ko jarul sax yow nga nga dute nga dute sa confiance bi nga am ci moom alors xam nga xam nga li ci des yëpp li ci des moom laa lay wax li ci des maanaam Macky Sall da cee laytaayoo rek ngir maanaam camper la décor ngir rafetal li muy def nii mais boo déggee ni mu doon waxee sax nga xam ne il avait du mal à l'exprimer en tant que président xam nga discours mi lu mu doon wax dégg naa nee nañ ndekete yoo yooyu la doon wax. en tant que président xam nga loolu c'est c'est très